Arsenal mo sonal Brahim Diaz ba tey ji nangu koo bàyyi fu mu mën di tourné rek mu koy soxla ngir bëgg ko indi foofee ca Arsenal ginnaaw Milan AC mu ko sonaloon mais supporters yi nag nee nañ ma Alaaji Malick sunu waa ji di Brahim Diaz nag gaañi yaakaar naa ne xanaa danoo yaakaar ni soxlawuñ ko te ñun soxla nañ ko bu baax a baax ci sunu club di Real Madrid ñoom supporters yi merengue yi bari na luñ ma koy wax ci commentaire yi maa ngi leen di ziar di sàkk ci képp koo xam ni abone goo ci seen bi nga coppati abonnement ba Lucas Vazquez mook Rodrygo Goes entraîné nañ tey jii mais individuellement maanaam dañoo beru ci seenu tàggatu gën doon def barigo nag li ko waral mooy dañuy bañ di sëmbaxloo gaay bu ko defee blessé bi di gën di mën di judduwaat waaye comme dañuy door a del si maanaam xel dalande na ci ñoom ci merengue yi moo tax ñu daal di nag laqatu ndànk nag def liggéey boo xam ni liggéey la bu jaar yoon boo xam ni ci image yi ma leen di proposé gis ngeen Lucas Vazquez bu nekk noonu di gondaandaat di doxal di yey ay xam wala boog di lakk ay xam ci ak wetam ki la nga xam ne tamit mooy Rodrigo Goes di international brésilien bi tayit moom it mu bari ay supporter lool ci dëkk bi moom it def na ak tàggatu gu ama am solo mboole seen seen cofeel maanaam am na solo bu baax a baax ci équipe bi la nga xam ni moo nekk équipe bu Real Madrid. Asensio yi ngeen di gis nag ma proposé leen ko ci image mu ngi ci euh, li la di maanaam équipe bi nga xam ne Carlo Ancelotti woo na ko ci match bi nga xam ne Real war na koo am suba ak jàmm Asensio nag ngeen gis ko ci défense bi lay football te it ñu bëree bëri dañoo bëgg moom it muy doxal moom mii di Asensio mu wuuteeg Asensio ma daan football attaque te nekkoon ca Paris Saint-Germain est ce que ba léegi sax ne bu fa ndax yaakaar naa ni maa nga fa ba tey waaye xam naa ne man li may siibur équipe bi la di Paris Saint-Germain moo bëriwul Brahim Diaz maanaam Arsenal intéressé wu na fi. bu baax a baax maanaam bëgg na ko te bu fekkoonte ni gone Arsenal yi les Gunners am nañ ko foofee ci seenu dëkk mu leen di footballal du ñu wax dara te it danañ jàpp ni maanaam occasion la ah, bu ñu dul am ci àdduna wala ngal kàpp waaye Brahim Diaz nag la ma mere ngay waxoon ak supporter yi ci commentaire yi damaa sonn nee naan Alaaji seen gone gi joxewuñ ko tey joxewuñ ko suba dana koy bàyyi foofu muy doxal foofee ca Real Madrid ndax soxla nañ ko moo taxit kii di Carlo Ancelotti ak doomam boole nañ ko ci groupe bi ñu tabb léegi sama waa ji seen waa ji Sadio Mané ñancoo international ak yilimaani attaquant yi bokk na ci li nga xam ne nag coupe d'Afrique ba nu dëgmal bu ànd ak dogal borom bi coupe d'Afrique booba danañ ca am taxawaay bu yaatoo yaatu waaye bëgg naa ngeen bàyyi xel bu vingt heures jotee benn documentaire boo xam ne goney fédération yi def nañ ko ca seen télévision boobee muy documentaire bu am solo vingt heures heure Sénégal vingt une yéen ñi nekk ca France ndax documentaire la boo xam ne mi ngi am ci équipe nationale ci éliminatoire yi daanaka lépp ci at mi nga xam ne yebbi nañ ko ba ci bari ci wàllu football waral ngeen bàyyi ko xel ndax loolee nekk na documentaire boo xam ni maanam am na commencement waaye amutuk teer waaye ci wàllu neex ak mbégte mu am solo kile di jiite football Afrique ngeen gis ko Metso moom moomee gone Guinée yi nga xam ne defoon nan ab euh, këyit wu weex bind ko bind mu ñuul teg ko ci taabal ji Aladji Malick TV jàllale ko woon di wane ni ñoom ñoo ñeen àndunu ci qualification bi nga xam ni euh, bu ma juumul Tanzanie am na ko waaye këyit woowee nag euh, jàpp naa ni mu jëwul fenn tus tasar ndax bu ñu xoolee équipe yi nga xam ne officiel na te qualifié ci Coupe d'Afrique bii di am fële ca réew Maroc ca xong nopp ya te it Aladji Malick TV am yéene lool dem bokk ca Coupe d'Afrique boobe ngir mën leen ko couvrir kuréel di eh, teg match yi en direct wala boog di teg avant match yi en direct loole nag di aw kayit wun tegoon ci taabal ji mujjul sotti ndax goney africain yi maanaam de jiital lii di football afrique génn na nag équipe yi nga xam ne di ñaar fukk ak ñeent ñi qualifié def ko officiel ci seenub site internet kon mboole seen mooy loolee d'accord na nit ñi kat ñoo war a dem coupe d'afrique amaatul leneen luy tax lu ñuy xaar ndax léegi jël nañ seenub décision kon Guinée day mujj toog loolee ah, mujjiwul fenn moom mii di Guinée xanaa ñu bàyyi leen ñu supporter équipe bi la di Sénégal comme suñu dëkkandoo lan teyit Sénégal qualifié na te nee naa leen Sénégal ak Guinée benn bopp la ah, kenn mënu koo xar Sénégal ak kile di ah, international sénégalais bii di Nicolas Jackson Jackison maanaam benn bopp la kenn mënu koo xar moo tax it sarxolle na match bi mu doon football léegi ak équipe bi di Euh, Chelsea ga muy football dugal na ci ab but sar xolle wane boppam wane ni moom moom moomee kat Sénégal la mënta dugale waaye bu fekkee te dem na ci équipe am di euh, Chelsea gars yi di ko passe passe neex passe yu leer bu ko defee muy lijjanti situation yi du gëndaan daat gëndaan daat da wane mbégteem waaye du moom kese ndax mbégteem moomee yaakaar naa ne bi gën a jóg see euh, fële ci Sénégal dellu Angleterre moom Iso Ismaïla Sarr ñu bari doon ko sànni ay doj doj yooyee nag for na ko maanaam dajale ko ba mu jekk nag sotti ci ndox mu sedd guy muy na ni dugal na ab bit boo xam ni euh, mën na ne ni moom moomee jeexalagul tey dese na lu bari Ismaïla Sarr Iso jàmbaar la football na match ba Crystal Palace juróomi minute daanaka séngam la def ci terrain bi taal kër gi kon kookee attaquant vedette la bu Crystal Palace